moo tax ba mu toog ba gis kàddu yu si génn yooyu moo ma ne xaaral ma toog man tamit dem naa ba xam ne lii du dootul affaire de vidéo wala affaire de santé ma ne si bëgg jël sama image pour jaaraale si pour kenn deru sëñ te man en tant que taalibe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni man du ma nangu gaa gaa dafa benn bouclier pour awee ci man pour salir deru sëñ waaw ndax sëñ moom lu mu def si ñun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 ak bi jëm réew. ndax lii ñu am lépp tawfeex ci sëriñ bi moo la ko noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi.